ASID TV la chaîne des seen xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci tontu bi nga xamante ne tontu du foro. Guy Marius Sagna jogleer ki nga xamante ne moo di Thierno Alassane Sall moom nag tudd na ko jox ko cëram ak gëddam tudd turam ba mu jeex moom mooy di njiitu. parti bu république des valeur di Thierno Alassane Sall ni moom gisul benn haine pour bañ a tudd turam jaar ko gis ni kàddu yi nga xamante ne Thierno Alassane Sall yëkkati na ko foofee buñ ko invité ci 7TV doorewu ko niki démb moom nag yàgg na ko di ko ko wax di ko traité de machin di ko traité de n'importe quoi jàpp ni musul samp ab laaj di xamle lu tax diggante Ndakaaru ak Richard Toll wala Thiès ak Kaolack wala sax jëm Louga ak Ziguinchor askan wi di namm waa FRAPP di leen di teewal ci seeni njàmbat ak it doxit ñaxtu ñu jékkati ay critique jëmale ko ci ki nga xamante ne moo di kenn Alassane Samb lu tax du ko gis ci yile marche yi nga xamante ne askan wi dañ ko dee faral di amal muy woo askan gi ngir ñu bañ a ŋàññi ci di Thierno Alassane Sall nag kat gis na moom wanewul benn modèle ngir mën a xeex askan gi moom kat dafay doxe ni waa njiitu France di doxe mu gis ni loolu yëpp amul solo lu ëpp solo mooy askanu Sénégal dañ leen jox majorité foofee ci assemblée nationale maanaam pencum ndaw réew mi ci ngoonu fanweeri fan ak benn ci weeru juillet bi ñu dëgmal atum 2022 bi. ngir ñu mën a xeex lépp lu jëm ci wàllum foncier bi maanaam coowal suuf si waaye lépp li nga xamante ne entreprise ñi nekk ci bitim réew ñu ngi koy gañ ñu mën koo xeex waaye agression yu bëri yi ci ñu nemmee ko ci biir réew mi ñu mën koo xeex permis ba mu jeex tàkk te li nga xam ne lu ci ëpp. mooy ñii di ouvrier yi ñoo ci gën a ñàkk seeni alal waaye tam li nga xamante moo di ji béykat yi tudd na leen ca waaye wàllum napp bi bàyyiwu ko gannaaw étudiants yi tam ndongo daara yi jàngee ci université yu kawe tudd na leen ca waaye lépp li nga xamante ne entreprise la maanaam ab société buy jël ndaw askanu Sénégal di ci liggéey di ci tedd ñu daal dina mën a xeexal seen ak ak seen yelle wax mu jëlaat ay kàddu Thierno Alassane Sall Guy Marius Sagna di xamal ne moom ab machin la comme ni ko Thierno di woowee waaye machin la bi nga xam ne dafa victime maanaam ci li nga xamante ne mooy li ñuy nangu ay suufu réewam ak i forage am waaye tamit machin wu liggéeyukat yi nga xamante ne dañ leen di dagg seen salaire wala sax dañ leen di tardé fay seen salaire wala ñu leen di dàq ci lu teguwul fenn waaye tamit respecté wul na benn yoon seen ak ki yelleef mu dolli ci ni moom it mooy machin wu bachelier yi nga xamante ne jotuñu am seen orientation ak ndaw yi nga xamante ne ñu ngi jàng te mun ñoo am seen master ba léegi wala sax mun ñu koo def waaye itam moom it moom mooy machine wu milieu chômeur yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku fii ci Sénégal maanaam ndaw yu amul liggéey. mu yokk ci ne moom nangu na nekk machin wu population yi nga xamante ne ñooy ndox. ci ñaxtu ci mbeddu ndakaaru yi waaye nag mu jàpp ne nangu na ba tey nekk seeni machin pour nekk ak ñoom ci biir pencum ndaw réew mi ngir xeex ak ñoom ci buñ ko nangoo moom nag mu gis ni du kenn ku nekk xujjee ak moom du kenn Alassane Sall du Abdourahmane Diouf du Amidou Dème du sax Cheikh Omar si du kenn bokkul ñoom ñi nga xamante ne samp nañ seen dënd bu nekk candidat ci élection législative yi ñu dëgmal ñoom nag gis na ni duñ ay adversaire politikam moo waral sax mu gis ni candidature gi ku muy gën a yëngal bokk na ci cu réew mi Macky sàll ak waa APR biral ni moom kat doonul gul candidat officiel bu yeewi askan gi nag candidat la ci biir candidat yi. mu yokk ci ne li ko gën a soxal bokkul yi bokk ci ñi nga xamante ne ñooy teewal askan bi foofee ci pecc ndaw réew mi moom li ma gis ni mooy dafa jàpp ni dafa war a mën a soppi yu am solo. ci doxalinu réew mi ndax kat gis na ne pencum ndaw réew moom bokkul li nga xamante ne lu ñuy woowee national ndax kat ñëpp moomuñu ci ndax ñëpp bokk ñu ci yem te wàllum démocratie da cee sooxe bu baax ndax gis na ne amul benn démocratie waaye tamit askan wi taxuñu ko faa toog ñu ci ëpp ci askan wi taxuñu leen faa toog. loole waral mu lànk ni ñi nga xam te ñoo yor nguur gi buñ fa am benn yoon majorité waaye yeewi askan bi daal di fay génn bu baax jor majorité bu pencum ndaw réew mi ci ngoonal fanweeri fan ak benn weeri juillet bu ñu jëm nii. ASID TV, la chaîne des patriotes.